yéen la jeunesse lay waxal yéen la jeunesse sénégalaise gis ngeen lii ñuy wàccee fii si tefes Mbour côté sali bi ay moor ñoo ne si gaal bi ay moor yaa ko des moor yu doon dem jéem dem Europe par ñu savire si yoon bi son sont tous morts il paraît que y a plus de deux cent corps voilà tey ñu ngi génne ay corps sapeurs yaa ngi ni di génne ay corps avec la police donc vous avez vu tout ce monde lu ko fi jar lan moo ko fi jar lan c'est quoi l'importance dund wala dem Europe nan moo si daax toog leen dund fii regardez regardez moom regardez moom ñii ñëpp ay doomu jàmbur lañ yoo amoon espoir dem toog leen ici rester ici ñëm ñu ne Europe ñëpp bëgg a ñibbisi man ñi di wax ak yéen damaa bëgg a ñibbisi je vous en prie dama leen ñaan si barke Seydina Muhammad si barke El Hadj Malick si barke Serigne Touba ci barke Baye ñaas bu leen jël ci gaal yi ngir yàlla yonent bi lii Regardez-moi ça. C'est pas important. L'important c'est de vivre. dund moo am lii lan moo fi jar lii lan lan moo ko fi jar dem tay la sa bopp si géej gi géej gi géej gi lu ko fi jar toog leen liggéey loo am liggéey tool yaa ngi fi mën nga jën ak jaay lépp nga fi s'il vous plaît restez toog leen dund parce que lii après da ngeen bu amee day tas kër voilà day doon nit koo xam ne nii moo doon peut être taawu yaayam wala benn la doom yaay benn la si yaayam mel noonu bu génne yaay ji nu muy mel famille boobu nu muy mel regardez moi ce corps là yi ñuy génnee. voilà fi mu ne lay waxee képp koo xam ne nii yow gis nga ni ñu ngi lay poussé pour nga dem jël gaal say kilifa jotal ndànk nga dem wax ko police wala gendarmerie parce que lii mënut a continuer am na ñoo xam ne bëgguñu dem mais dañ leen forcer ñu dem. waaw ah, parce que situation yi mooy demee noonu ñu naan xoolal doomu diw xoolal doomu diw yow ngi doo dara lu dem am moo la wax di nga yegg lan moo fi jaar lii yëpp arrêté ça bàyyi leen di jël téye leen seen doom téye leen seen i doom bu leen nanguti xale yi di dem di jël ay gaal bu leen leen fayal paas parce que ku si dem dañ la fa nga fay ku lay fayal say kilifa lay fayal voilà no état aussi jël si ay ay mesures yu sûr non seulement ku si sa doom faatu it ñu jël la comme ça là na gouvernement bu bees bii les Sonko et Diomaye la président Diomaye nañ jël décision yu yu yu brutal ci lii parce que lii dafa war a dagg képp koo xam ne nii say waa kër dem nañu non seulement buñ ci faatoo ak buñ ci faatuwul dañu lay jël tëj la comme ça on arrête ces conneries là lii c'est moi je pense que c'est des conneries c'est des c'est des suicides lii lii xaru la vraiment arrêtons ça arrêtons ça àdduna bi métti na dëkk bi métti na fépp métti on comprend mais nag aussi dem di tayle sa ba sa sa sa vie pour de pour pour lan pour tekki pour dégg. attends fépp woon ne tekki fu waay mën na ne tekki fu waay mën na tekki ñun ñu ne Europe nee dañu bëgg a ñibbisi ñibbisi rek lañu bëgg amul fu dàq Sénégal amul y en a pas ça n'existe pas un pays mieux que le Sénégal ça n'existe pas restez sur place toog leen seen réew liggéey loo liggéey baax na bon je suis et puis euh, di baal ñu baax baax. lii en direct la nii mbuur kenn nettalu ma nu lu maa ngi nii taxaw man la Ousmane Ndiaye Ponce maa ngi nii taxaw kenn nettalu ma ko direct la nii ni ngi nii tey tey tey di mardi il fait quelle heure même tey di mardi je vous dis je vous dirai tout de suite l'heure à 11 h génn ay corps regardez ils ont ramassé plusieurs corps presque il paraît qu'il y a 200 dans la mer ñi la ñu foree ndànk-ndànk. ils sont du ay léeb du ay léeb mun nañu foraat léegi benn fii tout suite foraat fi léegi benn corps bu ko fi jar pour quelle raison lan moo ko fi jar ah àdduna sa famille ku demut ku dig ba yàlla jël ko fi tey nan la waa kër nu ñu demee tey ah, du ñu misère ba dee du ko fi jar te yow yaa ngi doon dund di añ di reer di ndékki am say copain di tëdd ah, di dem say kër copain ngeen di daje di waxtaan di dem def la neex di dund biir Sénégal bu màggal jotee nga dem màggal bu tuub bu Tiwaawan jotee nga dem fa Tiwaawan bu jotee nga dem tey mu ngi nii vous avez vous avez tout bafouillé vous avez tout bafouillé je parle aux morts même vous avez ils ont tout bafouillé koor yi ñuy génn regardez-moi ça vous que ça c'est ça c'est ça ndax lan ndax lan ndax lan alalu àdduna alalu àdduna alalu àdduna leen waxtaan leen ak xañuy doom